salaamaaleykum maa ngi euh, nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam euh, yéen ñi may seetaan yàlla jàmm nekk ci yéen wàcc ci yéen yàlla leen yàlla aar yàlla yàlla jàppale euh, man nag nattu dab na ma mooy Covid 19 bi testé nañ ma mu positif ba tey ji maa ngi ci hôpital bu Diamniadio

su ma ko félicité tudd naa ñëpp euh, docteurs yëpp yëpp yëpp yëpp infirmiers yëpp ak euh, lépp loo xam ni àdduna ci ku ñëw ba hôpital Diamniadio ci ngay comprendre en fait euh, toute la chaîne nu mu complexé et pour mën a maîtriser donc lu mel nii di leen sant di leen gërëm bu baax suma mbokk yoo xam ne nag ba léegi mucc nañu yàlla na yàlla continuer leen aar may wax ni nañu gën a discipliné moytu nuyoo yi moytu rassemblement mbir bi moom euh, xamul député xamul ministre xamul directeur d'école euh, donc nag ku nekk euh vous avez euh, tous les moyens mën ko échapper discipline rek ak top sa euh té nank nank, ak ànd dal ànd dal li ci dess mom euh ngi suñu loxo borom te léppay sotti maa ngi dégg coow yu bari tamit on dal discipline fermeté suñu borom mën ci euh, très très bientôt euh, ñaanal leen ma fekk leen ci biti euh, du